suñuy kàddu nag du bari ab tënk lay doon waaye ñu xamal leen ni ñu ngi ci daarul mannaan fii ñuy wax ak yéen mooy kër sëriñ Abdourahman di dëkk boo xamante ni si bi bokk na ci dëkk yi gën a symbolique maanaam ci yoonu murit yu gën a am histoire gën a am taarix dëkk bi sëriñ Touba moo jox maam Thierno ndigal pour mu sanc ko bi muy nekk ci géej gi moo ko bind leetar mu sanc daarul mannaan booba suñ baa ngi bi mu ñibbisee ba jaar ci dëkk yu bare bari fii la fekk maam Cerno am nañ fi juróom benn weer wala juróom ñaari weer am na ñu wax loolu yoo xamante ni si maam Cerno mooy liqaam Sëriñ Tuubaa moom mooy jiite julli maam Cerno nekkoon fekk njaboot gu bari ci njabootuk sëriñ bi di leen jàngal ak di leen yar ci darul mannaan gii nii exilu ñaareel bi ba mu dem Mauritanie fii la bàyyikoo fi la bàyyi maam no bi muy dem Mauritanie waaye bi mu jógee Mauritanie googu noonu dellusiwaat fii nga xamante ne si moom mooy Touba moom moom mooy Thiène Jolof bi Sëñ Mbàkke Kajoor faatoo daf ko wax mu bàyyikoo fi moom maam no dem Mbàkke Kajoor kon maam Thierno nekkoon na Mbàkke ba mu demee nag la bàyyi fii mu gant waaye bi mu bi ci Thiène Jolof dem Njaareem ci 1912 la wax maam Thierno mu bàyyikoo Mbàkke Mbàkke Kajoor ñëw Daarul Muxti kon de mille mille neuf cent douze la maam Thierno dem Darou Mouhty ñëwaatut fii fii dafa gentoon dara nekkutu fi waaye ginnaaw bi fi maam Thierno jógee mille neuf cent quarante trois bàyyi fi njaboot gi fekk fii maanaam dee na dara néewtu fi ki nga xamante ni si moom moo dekkil fii mooy sëñ Abdourahmane ba mu fi ñëw fekku fi dara ak ndànn faay-faay la aw fas moo ko topp ak dugub ak li nga xamante ni mu am néegum ñax mu nekk fi di góor-góorlu di góorgóorlu ba dëkk bi toll ni mu toll tey kon fal aqrabul awla ku gën a jige gën a yey li nekk si dëkk bi nag sëriñ si kenn du leen ko waxal ñoom ñoo koy waxal seen bopp ñoom ñoo ci am ab responsabilité bu rëy rëy rëy rëy waa daarul mën naa nag kenn mosu leen dégg ñu nekk ci ay ñaxtu ak a wax ak a déedéet loolu mosut am kon lii bu ñu ko defee seen warteef la ñoom nekkuñu ay politiciens ndax Omar ibn Abdul Aziz ku ne xam na ne am mu jadit la woon nitu yàlla la woon waaye ni mu téye woon mbirum diini ji noonu la téye mbirum nit ñi ci seenu pajo ak seenu dëkkuwaay ak seenu liggéey te nitu yàlla la woon. kon bu ñu jàpp ni maanaam kilifa yi toog di wax ak a ñaxtu dañoo nekk ay politiciens duñ ay politiciens dañoo gis loo xamante ni si jaaduwut ci dëkk bi. Touba képp koo xamante ni si gis na ni mu toll ci ëpp yaatuwaay ak réyuwaay ak nit ñi ni ñu baree nga xam ne maanaam tey boo jëloon population Touba boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi Darou Manane gi lañ dëkkee mooy dëkk bi gën a rëy ci Touba mooy dëkk bi ëpp ay nit maanaam ci Touba moom Darou Manane waaye imaginer tey dañ leen a delloo ginnaaw lool mel ni ku leen di xeex te loolu mën naa ñàkk dañ leen a war a jox li ñu moom ndax Darou Manane li fi génne. bu fi delluwaatoon tey jii maanaam dër mën a passé fi seen ngeen yàlla jaa ngi nii di taw ay ndox yu baree bari mbedd yaa ngi fees dell ak i ndox sëriñ si sax bu ñu jógee seen i kër jëm maanaam si jumaa ji du jul du am fu ñu jaar dañuy teggee teggi tegg ba sonn loolu du yoon barab bi nga xamante ni fi lan toog muy kër gii nii 2012 Macky Sall ñëw na fi digg ay diggam wax ay waxam sëriñ bi ñaanal ko booba lañ ko noppee gis kon loolu mën na ni ay waxi politique la woon rek ci niñ ko mën a jàppe waaye lam digge woon ak la ma waxoon bu ko defoon yaakaar naa ba tey ji dër ma naan weesu na fii ñaareel bi mooy màggal gi ñu génn dër ma naan manqué na am ndox lool te dara weesuwu ko lu du ay forage yoo xam ne dañ koo tëj ndax dër ma naan manqué woon na ndox avant màggal gi deux jours ba après màggal gi ñu ko a tijji maanaam forage yi dañ koo tëj te ñu ko tëj ay nit ñoo leen ko tëj loo loolu mën naa ñàkk ñi koy def nag xam nañ ko waaye du ñu darul man naan na ko jox li mu moom loolu moom mooy yoon lamp yi ñuy séddale ci biir dëkk yeet darul ma naan des dese naa jot a xam ndax bari na ci mbedd yoo xamante ni dafa lëndëm crise bari na ci tamit dëkk bi pénc yoo xamante ni si am na ay tali am lépp waaye darul ma naan amu ko da ko war a am ni ko fépp amee bari na tamit ay camion yoo xamante ni si ay vidange la ak ay moto pompe yoo xamante ni si. waaye mairie bi joxuñu ci waa Darou Manane te dañ leen ci war a jox loolu moom mooy yoon dañ leen dañ leen a romb jàll ndax bari na dëkk yoo xamante ne si wala gox yoo xamante ne si moto pompier àgg na fa ci ndigalu maire bi waaye bi mu egsi ma naan dañ leen a tëb te tëb gi ñu leen tëb dañ leen a jox ndigal kon yooyu tamit mën nañ koo bàyyi xel bu baax a baax xam ni Darou Manane ay kilifa ñoo ko dëkkee Darou naan ay citoyens ñoo ko dëkkee ñoo xamante ni seen àq ak seen yëpp dañ leen ko war a delloo. ndax maandu mi ngi tàmbalee ci jox nit àqam li mu moom waaye ñàkk maandu ak tooñ mi ngi tàmbalee ci xañ nit àqam kon dëru mën naa nañ leen dëllawaat seen àq xam ni ci dëkk bi lañ bokk ay kilifa ñoo ko dëkke ay njabootu Serigne Touba ñoom ñoo ko dëkkee. politikuun kenn mësu leen dégg ci waxi politique wala ñu manifesté wu wala ñu ñàkk teggin kenn kenn mësu ko gis njabootu dëru mën naan dañoo jàpp si njàmbur di jaamu yàlla waaye dañoo gis ni mbir yi métti na. jaaxal na leen moo tax ñu génn di wax Daaru Manaan li ñu moom nañ leen ko jox nañ leen ko delloo ñun ay citoyen lan ay taalibe sëriñ Touba lan nañ bàyyi xeex gi nan bàyyi maanaam yi ñuy boolake yooyu amul sens amul solo ñëpp njabootu sëriñ Touba lañ ñëpp Serigne bi moo leen moo leen njaboote. li waral jotaay bi tey mooy ni ko siñ sii di waxee rek ndax Daaru Manaan mu yaakaar naa ne ah, toll na foo xamante ne bii maanaam ginnaawal gin ko ginnaawal dafa dafa jéggi doyoo. li ñu li ñu wax rek dañoo mën ba suñu muñukaay am fu mu yem loolu moo waral ñu woo leen ngir wax ngir ngir génn loolu te nag dara jiituwu si lu dul maanaam ginnaawal gi nga xamante ne bii état bi ginnaawal na ko kilifa yi nga xam ñoo dëkkee fii tamit ginnaawal nañ dëkk bi ak maire beeg ñëpp ndax joxuñu àq Daaru Manaan ji mu yoroon ndax penc moo mën a dem si Touba tëli nañ ko defar ko yoon woo xamante ne bi dana fa mën a jaar waaye suñu kilifa bu ñu génnee di julli ajum wala di am ku wàññeeku ñu ñëw si penc mi ngir war leen taxaw ay coono yu métti lañuy jànkonteel ngir ñëw fi agsi fi te loolu jaaduwut doon see war taxaw defar yoon yi maanaam oto mang yi mang yi nga xamante ne bi euh, maire bi moo ko jaxe ak moto pompe yi yooyu doon koo doon koo tekki jéggi si daaru maanaam te loolu jaaduwut maire bi am fi troisième am na fi trois mandat ban intégration la leen masoo ne leen lii maa ko jékk leen population Touba te population Touba li ñu waralante ak moom mu ngi koy def ba mot sëkk amul leen loo xamante ne bii mas na ko fay def koo xam ne am nga 3 mandat te mandat bu mujj bi def nga fi 5 ans xaw ma 7 ans te amul benn benn immigration boo xamante ne bii population bi defal nga leen ko loolu jaaduwul loolu du am mairie loolu kenn xamul lu mu doon. loolu nag doon ko doon ko doon see war a jug taxaw si population bi yi ñuy def yi ñu waral toll ak moom ñu ngi koy def bu mat sax ndax boo dee xool dara ma naan li fi nekk si ay ay service état yoo xamante ne bii ñu ngi koy jox ñu ngi koy jox maire bi mooy ay garage ak ay sareet yeeg yëpp yoo xamante ne bi ay banque yeeg yooyu ñi nga xamante ne bi maire bi ngi seel àqam te delloo ko delloowaatu ko si population bi loolu yooyu yëpp xam nañ ko kon nag yooyu bu ko dee jël si askan wi de defoo ko loolu doon ko war a dénoncé ban xam ko ñu ngi leen koy wax nag loolu nag ñu ngi ñu ngi leen koy wax ñu jox suñu àq wax dëgg yàlla ndax nag euh, mbir moo gis daa am fu daa am fu mu war a yem te fi mu nii nag lii taxaw nañ si ñun ñii tax ñun ñii toog fii jël nañ suñu matukaay lépp loo xamante ne bii gisati nan ko loo xamante ne bii jaarul dana taxaw dénoncé ko ba ñëpp ba ñëpp dégg ko ñu ko war a faj buñ ko fajut tamit danañ taxaw suñu taxawaay euh, citoyen boo xamante ni bii danañ ko kaas danañ ko ñaxtu ba ñu si war a dégg dégg ko buñ ko mënee saafara saafara ko buñ ko mënut saafara tamit ñu xam ne ñun li war waraloon ak ñoom ñu ngi koy def lu jëm si wàllu télé bi chaque année danañ ñëw natt ko ba si élection yu mujj yii rek moo fi moo fi mujj élection législative yi ñoo na natt fii nii wax na dañ koy def ab tëli waaye dañ ko yóbbu fu la neex am ñu koy dévier te yooyu yëpp xam nañ ko nag kilifa yi nga xam te ñoo dëkk fii si biir dëkk bi yoo xam ne état moo fi dugal euh, ay ay ay ay ay li mu a def si dëkk bi mu ngi ko fiy dugal waaye bu ko dugalee daa am loxo yu mu koy teg loxo yooyu nag ñoo wër te ñooy ñooy def bu leen joxee ñu ñu dévier ko yóbbu ko fu leen neex yooyu yëpp na xam nañ ko yooyu nag dafa war a dakk dafa war a dakk en tout cas daal ñi ñi nga xamal ñëpp ne ñun taxawal nañ kuréel boo xamante ni bii daal à partir aujourd'hui mayutul kenn moom muy def loo xamante ni bii état mi ngi koy def wala population bi di di dugal seen cotiser seen alal te joxuñ sa àqu dara mën a loolu mu day dagg bis ni ko tey